waaw ndeysaan gars yi waaw sabotage nag am na si campagne bi nii sabotage mu ngi am si campagne bi ñi nga xam ne ñoom ñooy militant wu Barthélemy Dias ay militant wu xawma ay nerf lañ lu ñu doon ñoo attaqué cortège u Pastef bu département bu Dakar seen cortège fële sa Dakar Sacré-Cœur fële leen koj ñi yor ay arme ay jaasi nañ yor bëgg saboté campagne bi ma lay xamal Barthélemy Dias lii du jëm kër lii mooy lan booy campagne campagne sa campagne fuñ toll nii jot na say gaañ ay nit dem say militants yi ñëw foofu ruube bëgg a xaw ma lan lañ doon def noonu quoi pour lan ban sens la am ak lii boo ko defee loo siy gañe jot nañ fa gis tamit ay agression yoo xamante ne jigéen ñi la ñii di leen agressé di nangu seen téléphone pour lan yàq campagne mënu leen si ñun dara mënu leen yàq campagne tey leen ngeen ànd ak dal opposition bu mu leen jaral yenn yi lii mooy lan opposé bu mu leen jaral yenn yi ngeen foog ne luy dëgg la ban sens la am ak ban njëriñ la leen amal Barthélemy xalaatal yàlla xalaatal ëllëg li ngay def amul benn sens mu ngi noonu nag cortège Pastef bu département bu Dakar ñoom la nervi Barthélemy Dias attaqué fële sa sa kër pour lan ban njëriñ la am.